Chapitre, chapitre wani wani fes. Chapitre obi, mini wani fes. Ande takou ligey moun nou fay, nyon wala tene a legi. Ande takou a moun nou fay. Defenani. Président Massa Bagé, ñu ngi lay nuyu di nuyu Dona Ami Diaw, di nuyu Baye Dignan, sa secrétaire. Voilà donc. Imam Ousseynou Thiam mii ci sa gore lool jóge Ndar moo leen ànd ak délégation bu mag waaye nag lu bëri ndaare am nii moo tax man leen tey tribune bi bare tey nii xoolal kee ree di dugg ci suufu chapiteau bi déggoo ci angoisse gis nañu également ni si nañu waa Saloum waa Saloum yegg si nañu ñooñu moom su ma jege woon liggéey rek dama naan ko mu dagal leen ko yaa ndeysaan ñu daal di koy duggee ñu daal di koy duggee Saloum mu daal di def noonu benn xani boobu rek ndeysaan ñu daal di euh, dugalee loolu waa Nioro yi waa Nioro yi ndeysaan kenn ku ci nekk xam na ne Sénégal ñëpp a bokk ndey ñëpp a bokk baay mais du ma coach. waaw. Oh.

président Djibril Wagine, bienvenue. Donc voilà, nous allons la délégation de M. à chercher mon Monsieur le président du ko wax bi ñu koy inauguré xamee ni dem nañu ba xaala bi am fasi fa daanu voilà loolu sax euh, waxtaan la woo nga xam ni dañoo wax koy wax ñëpp teew ni teg parce que bu am nit bu nekkee ci rawatina nag di jigéen ju mën góor dañoo war di leeral liggéeyam bu baax a baax a baax. docteur Sangomar Chérif Mame Aïdara. Yétigi Kaya. Maïbra Diagne. waaw kii sax dañu noo koy gay. ay dara ñu ngi leen di leen jaaj. waaw da ngay. léegi léegi. wow wow rëy na de. voilà. ndeysaan. liggéey moo yor réew. bi taay ba day egsee. liggéey moo yor réew. la faal ñoom egsee moom itam ànd ak afet waa afet. mi ngi woote fees.

déggul waaye sama xarit la di nuyu président Ousseynou Thiam mii ci sawet gore lool jóge Ndar moom it ànd ak délégation bu mag waaye nag dafa indaale am ngéyéen <laughs> moo tax man leen tey tribune bi bare day ngéyéen xoola keeree ñu ngi jóge fépp à travers le Sénégal dëgg la di dugg ci suufu chapiteau de gauche à droite gis nañu également ni autorité yi ñu ngi jóge fépp ci biir adduna bi ñëw ngir àndandoo ak ñoom pour la réussite de la journée. waa Nioro di rip egg si nañu waa Saloum. waa Saloum egg si nañu. ñooñu moom su ma njëkk a woon liggéey rek dama naan ko mu tegal leen ngoyaan. ndeysaan ñu daal koy duggee. ñu daal di koy duggee parce que Saloum. mu daal di def noonu. benn xarit boobu rek. ndeysaan ñu daal di euh, dugalee loolu. waa Nioro ndeysaan kenn ku ci nekk xam na ne Sénégal ñëpp a bokk tey ñëpp a bokk bàyyi. mais du mooy coach. waaw boy boy. la génération du ministre sera restée à jamais. quand les grands ministres vous ont inspiré tous vos jours. waaye loolu jóge daal moom it ànd ak délégation bu mag waaye nag dafa indaale am ngéyin. toujours fidèle à sa éducation. devant les petits.

delivered. jaww foo mën a daw fa ah jaar naa la bienvenue donc voilà mu ngi noonu la donné prison pour lâcher. Merci beaucoup de la parole. Oui, t'inquiète pas, Lydis. Dieu, bon Dieu, tout le monde n'y a pas de Dieu. Comme le gars de la moitié de caisse. Daniel Parent, le pas de quoi tu vas.

du nationale des éleveurs du Sénégal de recouverture, partage et solidarité. nous avons ko wax. ñoo disons ci seen bi de de par leur engagement leur détermination leur volonté pour le développement de l'élevage pour la bonne vie. di réseau national des jeunes doomu Sénégal ñu daal di leen décorer. ñu ne leen ñoom mooy yan ñu ne ki ci jiitu mooy l'infatigable Matar Fall. Oh oh, oh oh oh oh waaye Matar. non. li ci yéeme nag mooy Matar Fall ñëw na ba ci man. Uh-huh. coordonné lépp ba lépp sotti. mu ne ma coach Marie Ba mu ne ma dañuy décorer président. Oh, voilà une volonté.

coach Malick Ba ma ne ma dañuy décorer président. il le mérite grand monsieur il le mérite. Euh, Matar Diakhaté son ami son frère son harmonie. il le mérite il le mérite. il le mérite. maanaam ngeen ko def omb bu gudd. oh ndeysaan Makhtar yaram daaw na nag. mais waaye naa ne si xalaate ngeen fa sori. Oh, oh, président Touba lii lay def. oh Makhtar waay. waaw Makhtar. Makhtar. si ñu la koy joxe. voilà non Makhtar du wax. voilà mais euh, merci Kocc. xam nga mais je voulais préciser que à travers euh, ce geste on a voulu aussi rendre euh, hommage. et aussi euh, surtout encourager toute l'équipe de la permanence. Parce que euh, c'est des garçons engagés à mon qui font un travail de terrain, qui font un travail euh, sur les vais les mais qui euh, font, un travail de marchand. Euh, ces garçons, nous ne pourrons jamais, jamais leur témoigner notre reconnaissance et notre gratitude. Mais comme une petite geste, sensibilisation de nous pouvons nous sommes, nous nous, voyons toujours leurs efforts et nous sommes très sensibles à tout ce qui font pour, pour, la engagement, je je le dire, mais pour Donc, nous les remercions tous Merci, Président.

l'histoire de l'élevage du Sénégal. Qui Qui xamante ne moom la le solo grand bopp bi moi nga ne il a été le sapeur pompier de l'élevage du Sénégal. Madame Marissa, le guerrier de l'élevage du Sénégal un grand monsieur de par sa volonté son engagement sa détermination mais aussi li de l'élevage du Sénégal, c'est rien d'autre kanam eh, eh, eh. muy l'élevage du Sénégal encore une fois Omar Sow jërëjëf. koñ voilà donc gis nga Renades man maa ci jëkk a sol grand mbubu Thiès yi Thiès kii si bu cher la ñu ma jëndal ñëwal ma ko grand mbubu rafet ba léegi néegu ma koo tilimal dama koy sol rek summi tegaat mais Omar Sow mi jox nañu ko tey lu mu mën a joxe. voilà waaw donc ñaar ko wax. mooy ñu ngi ànd ak Omar Sow. mu jiitalu te duñ duñ ànd ak moom léegi jàpp ñun ñoo xam et ñun ñoo xam li Omar def li Omar Sow def indi indi la naa def ak li Omar Sow euh, defante naa def ba ba naa def ci suñu parce que xam nga njiit njiit dafa am solo parce que njiit mooy bu doxee lépp moom lay bu doxul tam moom ci moom lay moom nag yàlla ñu ko dimbali mu nekk nit koo xam ni c'est un grand manager mais aussi doy doyul te dafa tax a doyul mais dafa am humilité am aussi benn loo xam ne ay qualité yoo xam ne qualité de meneur d'homme qualité euh, de rassembleur et puis d'une générosité sans faille parce que man damay wax ni ñun tey jii dañuy euh, ñaar ndax ñu ngi lay dem ba suñu amee événement. dañ koy yërëm man man man damay damay damay dem ba gëm na sax bopp bu ñu xay boo léppam léppam léppam léppam la ma ko jox léppam day damaa jox man ko fay c'est la grande symbolique président ñu lay gërëm des acteurs au nom de toute euh, l'équipe mais au nom de l'ensemble des membres de la merci beaucoup jërëjëf jërëjëf lu mu mën a am de bokk na koom yëpp merci não Fodj. kii di wax yow nag mooy secrétaire général RENADES Miss Béyou Diakhaté lépp fi la ko fekk. merci beaucoup Fodj. bëgg Renadès ak bëgg Renadès rek moo la fi teg parce que tey ku xam ci nit ñi jógee ñëw fi ci Thiès xam nga tukki la parce que am na jógee ba dans les régions périphériques le président de Linguère est là Waly Ndao le président de Fatick est là Massamba Diène le président de Diofior est là El Hadj le président de Kaolack est là pratiquement tout le monde est là ku ci nekk maire Gamou dafa nga xam ne moom moom membre actif la ci Renadès ànd ak ay membres RENAC ñu toog fii gis ngeen